waaye kilifa yi tey dafa am lu leen yëkkati ndax li ñuy dégg fii ci sénégalais yi neexu leen ba tax ñu ne nañu yëglu balaa yëf yi di yëpp loxo ba ñuy ñàkk terang yi autorité marok di defal senegale yi Babacar Dièye moo jiite sénégalais yi ànd ak yeneen responsable te mooy tàmbali waxtaan wi ci weccoo xalaat ak ñi mu fi fekk waxtaan bi soññaat la parce que ñun ñëpp comme ni ñu koy waxee dañu bàyyi suñu dëkk ñëw dañu ñëw wëtse kilifa yi police ñoom ñoo ñu wax ni dem seen seen bopp yi pour vous dire que ngeen di def xam nañ li ngeen nekk suba ba xam nañ lu baax xam nañ lu bon xam nañ mais nag comme ñun ay naata loolu ay mag ak lañu bu ñu àggalee message te mënuñu ko wax kenn ku nekk ci yéen ñu nit ñu jël message boobu porté pour ngeen dégg bi ci jiitu mooy comme ni ma koy wax ñun ñëpp ay doomu Sénégal ku ci def féewaloo ak li ñu war a def te def nga ko def képp koo xam ni tey jii def nga leneen loo xam ne défendre loo Sénégal wala lu yàq deru Sénégal defoo li la war ñun ñëpp comme ni ma ko waxee dañ fi ñëw wut sutura teraanga mais bis boo demee ba borom place bi borom kër gi naan la kat sama kër gi seen bopp ya fa nekk ñoo koy yàq ñu ko toogee du noonu naa danger am na ñun nag suñu warugar mooy ñu ñëw ne leen kat kilifa yi nee na li ñi ngeen nekk ci place bi ñu ñëpp nag ñoom lépp lañu xam téléphone yëpp la ñuy dégg robot mooy traduire boo waxee wala fi xam nañ looy wax donc lii ñuy wax yëpp day àgg ci ñoom parce que zone la boo xam ni zone bu sensible la caméra daf fi nekk surveillance daf fi may waxaat rek ni il y a deux ans na nun seen mbokk yi ñoo i fiy def loo xam ne dul noonu dinañ leen topp dina ci am ñoo xam ne dina leen jàpp te noonu ñu ko waxee def nañ te loolu commencé waat soxlawul ñu dugg ci détail yéen xam ngeen la ñi ñu leen woo nañ ñu seen jigéen ñi ñoo ngi woo nañ ñu seen gars yi ñoo fay jaay yoo xam ne dañ ko tere dañ ko affaire dañuy leer parce bu ko xam dem demaat bi ñëw waxaat mënut a mujj bi amul bu continuer nii ngeen seen place te ku nekk bu boobaa lu lu koy wolof yi waxee lu waaye xam boote doom tey nag mel na ni yëf yi fóotum biir néeg la te xëy na waxante dëgg du ci yàq dara. fii naar dana fi nekk lëkkaloog sénégalais ñëw mel ni kuy jënd ci yow fekk boobu da lay jaay. nga dem ñëw rek ñu ñëw jël si la. te loolu nañ ci bàyyi xel. ñi ko fiy def ku ci ne xam nañ leen. mais amul kenn koo xamante ni war nañ mën a taxaw ni kii la wala kii duñ ko def. Mm-hmm. parce que ñor newu dégg. fii nag ñoo moom place ñun ñoo nekk si place ku fi ñëw Sénégal yëpp de ku liggéey ba wàcc liggéey ba sonn fi ngay noppale ko mhm. li nga fiy def duñ ko xam mhm. tey wax dëgg yàlla ñu ngi leen di jéegalu te ñu bàyyi di nettali mhm. te bàyyi di toog di jëw di wax tey du ñu jote jote jote ñoo bokk Sénégal xol mooy xat mais wërsëg dafa yaatu ama gën a gaaw ñàkk ñàkk gën a gaaw kon nañ ko sóor ci sunu xel ñun dañ fee daje kenn ku ci nekk la la sa yàlla sunu borom war sa gëlee nga yam ca mais bëggante ay wax kenn du ko nëbb soxor moom ci sénégalais la fekk baax senegale moo lay reetaan nga yaakaar dalaa bëgg fekk ni paaka bi lay rendi mën ko das téye xamante rek mooy am problème yéene moroomam kaso man maa ko dund maa ko gis ndax nit lu mu dund da koy da koy wax ci xolam toujours boo ko laajee da ciy sawar ñi fi nekk ñëpp ay hypocrite la man benn ci man mën naa laa woon lu ma la lu ma taxawal rek damay wax xamal tax ma koy wax gis nga nit du fóotit gis nga Yaxya ànd dafa neex man su ma xamee ne mënumaa ànd ak yow dama lay bàyyi mais duma ma la yàq mais dañuy yàqante da ngay wéet waxtaan ak nit mu joxe ko neneen sens contraire bi da ngay dox di dégg man duma xale magum jëmm laa yàgg naa ci loxo nuñ ma téye xam naa ko xool yi la ñu war a raxas yaatal ko yow lii sa wërsëg tey journée cinq mille dirham ngay wàccaale yàlla na la jig bu lijjanti kenn mille dirham moom ak nu mu ko amee mais xeex bi mënoo ko fee jële tongo bi mënoo ko fee jële hypocrite yi nekk ci xol bi yàgg na ci nit ku ci nekk li ngay numéro rek noonu nga mel benn ci man man sama jikko ndayaa daa ngi sama seex la su ma boo ma nee maa rey nit bu ma miimal ndax am naa ay jikko yu bari nag mais am na lu waa marché bi xam ci man dañu yaawa dafa baax mais am naa jikkoy caay-caay yoo xam ne bu ma dee woon kii mënu ma koo seedeel yàlla ko xam ci man parce que nit moo bari ay jikko mais place u liggéeyukaay jàmm moo ci gën Maroc boo fiy dugg trois mois lañ la may sa trois mois bu jeexee nekkatoo en règle mhm. normalement da nga war a génn duggaat mais tey da ngay gis quatre-vingt-dix pour cent cas yi ñuy am nekkuñu en règle te police boo demee boo nekk sa passeport la njëkk xool boo nekkul en règle ñu yóbbu la te normalement loi bi dafa ne da nga war a génn dañ la war a dugal ci oto wala dugal la avion génne la dëkk bi mais comme relation bi Maroc ak Sénégal am moo tax ñuy maslaha yóbbu la tribunal nga fay 1100 dirham des fois ñu ñu defal la PV na la demal saa amee nga ñëw fay kon loolu euh, relation bi ñu am ak euh, marocain yi fii est-ce gis ngeen fii beneen nationalité bu fi am place bu amee rek benn du ñaar kon ñun sénégalais yi li ñu am fii dafa rëy tey apartement appartement mënutuñ ko am mënutuñ fi am dara comprendre nga da dangay gis man chaque jour nit day ñëw ne appartement lay wër dañuy wër ba sonn ñu ne sénégalais ñu ne non te bu njëkk ba naar yi luye jaral na leen lu ne wallaay luye jaral na leen lu ne mais léegi yàq nañ lépp kon nañ gën a góorgóorlu li feeñ ci waxtaan wi it moo di ne teraanga yi sénégalais yi am fii ci Jamal fanaa ñoo ko war a sàmmal seen bopp te bana war a mën a nangu ku leen koy yàqal du yomb nag ndax communauté bi dox daje la gën a niru ko mbootaayu mbokkoo mu muñalante rekk waaye ku nekk xam foo war a yem. fii àndandoo moo fi nekk. Mm-hmm. nit dina fi feebar. xaaj bi du ngeen seeti te da ngay nekk ak nit ba mu feebar nga toog bañ ko seet loolu du yoon fii ñun ñëpp dañoo wut si dañu jóge Sénégal wut si yoru njaboot yoru doom xam nga la ku ci lañ ñu bootu ay lu bari bootu sa ginnaaw kon Baye Fall buñ ko yàq fii teranga bu waaye xeeb rek ni nga ko nit fi am lu fi waaye xeeb rek ni da nga ko fi am parce que Cheikhul Khadim ñun dañoo ñëw Maroc di daan suñu doole duñ ne Maroc neexul man de banque ci gis sama bopp maa ngi sant te ñun ñëpp a ngi sat bu ñu yaatalee nag mu gën a ñun ñëpp gën a sant mais xuloo bi xaju ci diggante bi xeex bi xaju fi ñaawoo bi xaju fi sottantelu tàng xaju fi te nañu raxas xool yi. fii nañ ko defar ñu ci bari gars yi teg ngeen ko bët te yaa ngi koy gis leen koy signalé ku toog sa place daf lu mu def woo ko ba mu ñëw ne ko eh bis ni ko tey bu mu amati su bañee nga foto ko dem police mu jeex parce que fii yéen fi am seen teranga man nag xuma saytaane laa xuma duma saytaan coow li fi am tamit dañuy dañ ko dañuy waxtaan rek mhm. gis nga ñun mhm. ñoo fi ne ñun ñëpp mhm. gis nga xol bu àndul dara du ànd man chaque jour a koy wax fi laa ne am na ñu ma fekk am na ñoo xamante ni maa leen fekk mm-hmm. man sama xol mm-hmm. li ma yéene sama bopp laa yéene ñëpp barki mm-hmm. ma déggal damay damay waxtaan ak ñoom jëfanteeg ñoom parce que ñoo ma déggal ñoom laa seqal ku ci am problème ñëw am war ko war ko war a laaj sama soxla dama lay laaj sama soxla conseil damay conseil fii nekk naa fi ba ba fi ma nekk coow sax su ma bugguma ko du ma ko def yaa ngi dégg kon nag grand seen ci nekk na xam nga sa bopp fii nag jigéen góor ñépp ay jàmbur lañu dóor waar rekk duñu yendal duñu fanaanal naaw ay nag jàmm waxtaan wi daa mel ni lu mënul woon ñàkk la ngir ñépp defaraat toogaay te it nag bala nga naan naam ne fa bu ñu talee ba dem di lang waxtaan wi sant yàlla la ci ñu bari ndax nag weer ci ginnaaw saalit dikkaloon na leen ñu bari delluwaat nañu ci suñu boroom ci bi muy yëglu ci sóoratul zalzala teer bi sénégalais yi ku nekk ak ni nga ko dundee waaye ñëpp am nañu ci yëg-yëg ak taxawaay association sénégalais yi dem nañu ba ci tund yi gën a sori yi gën a loru yóbbu fa seeni ndimbal ak a massawu ñi ci loru muy guddi gi kenn dul fàtte fii ci Marrakech te ba léegi ñu ngi koy waxtaanee. affaire bi bu mu amee. man sama xel dafa dem ci yeneen dëkk yi man ne li am yeneen dëkk yi am na suñu dëkk kon man foofu noonu tiit naa ci benn côté tiitu ma nag parce que ñi ngi naan balaa deux de temps trois temps affaire bi day amaat koroog nga gis lu garaaw jamal fu naa mel ni màggalu Touba. naa la mën a jox exemple jamal fu naa mel ni màggalu Touba tubaab yëpp génn seen hôtel seen riyaat kenn desut ñëpp génn ñu dajaloo ci digg Jamal Fanaan ndax Jamal Fanaan amul kër. digg mhm. bi place la. place publique la. Mhm. génn ñun sénégalais yi dajaloo man moom da personnel damay sant yàlla ndax bi mu amee. boole ma sama wax am yeneen dëkkee rek a am damaa jël bagage yi rangé place bi nag bagage yëpp muy fii muy place bi naa leen jox vidéo yi mhm. après. yépp a wadd macha allah mais dama ni sant yàlla ndax xëy na lii nii moo gën si ñun ndax bu daloon suñu kaw day nett mais suñu borom bu defee benn sénégalais rek ñaari sénégalais ñoo ci am ay problème sénégalais ci des ñu ngi sant yàlla ndax boobu fii la ñu fekk. Mhm. mais bu ñu fekkoon suñu biir kër yi ni ñeneen ñi ni ñuy def noonu la ñuy def dañuy sote ay étages. ndax affaire bi nu mu ni mu ni mu ni ñu ko dundee daal moo metti mais ba tey rek sant yàlla. bi mu yëngatoo oto oto bu saara sur le moment man gis naa benn waaye boo laaj mbaxanaam te mbaxanaam mi ngi ci bopp bi. parce que moom daf ko gis moom dafa gént lii fi am mu wax ma ko. ñetti fan lañ ma ko wax mu wax ko sama hmm. yaay. dama gént man la ñëw ni ma damaa gént. yow bu ndax kii commencé woote naan. damaa gént barke Seydina Muhammad ñetti fan lañ ma ñëpp ah a xam maa ngi ko seet. damaa tëdd di nelaw moom mi dafa yeewu ma woo sama yaay vocal bee ngeen ma ma woo sama yaay ni ko yaay damaa gént ànd ak nday aada di liggéey ma ñëw fi ñuy arrêté taxi barke Salatul Fatiha. ma ne ko ah, ma ne ko bi ma arrêté taxi tali bi ubbeeku taxi bi dugg. bi may def demi tour ma gis suuf say xar nit ñuy dugg ma jàpp loxo nday aada seen waa jamal fi naa def mbooloo daw wut si ma daw jël gu benn kër daw dugal fa nday aada bi ma duggee ci biir kër gi ngelaw li bari ànd ak rek taw sama yaay laa woo li may wax ak koy teg sama yaay ne ma ah, ma ne ko ah mu ne ma naqat dina dal ma ñu teg ci ñaari fan. ñetteelu fan bi fii laa xëy si bi ma xëy si fii laa toog dem bay teg ongle client barke salaatul faatu ñu ne ma tey la affaire bi yàqu barke yonent yàlla Muhammad bi ñu jullee gee ba pare rek ak fi mu amee benn bi ñu jullee te sa bopp barke salaatul faatu mais nag man biroon na man damay dóor ndax ñàkk ma ci sama bakkan te kii ñàkk ma ci kaw mais dugg naa kër goo xam ni kër bu bu euh, pareegul la mais maa ngi yéeg di sa dëkk mais dara dal te noonu Marrakech nag dafa nekk base monnaie des montagnes au pied des yi dañu tiim Marrakech euh, yëngu-yëngu suuf moom dañ koy faral di noté ci Marrakech mais bii nag àggoon na euh, niveau boo xam ni sur les atmosphères ñëpp tiitaange la ñu c'était la première réaction mais qu'est-ce qui se passe pendant dix quinze xamoo lan ko da ngay jékki-jékki gis miir yi di vibrer seetu yi di wadd donc mu waral itange bu mag mag mag si nit ñi lu waral nag euh, ñenn sax suñu comportement yooyu pour se xamuñu lan la ñii ku nekk ak ni muy ci tiit ñii dañu daw génn woote ci état nañ ci nag ay mbokk yoo xam ne wax dëgg yàlla amoon nañu ay blessures yu doy waar sax mais yàlla def na nag moom na ci kenn bi ñeneen ñi alhamdulilah ils en charge ah consulat aussi ak ñun def ci benn comité boo xam ne dañ leen di suivre de temps rendre compte aussi autorités pour topp seen ginnaaw saytu leen daal mais nag amoon na ay dégâts am na bombardement yoo xam ne ancienne Médina bi ancienne Médina ñoom seen kër daanu daanu seen kaw ñii di daw di génn bërëm daal ku nekk ak moom la. li ñu ko fekkee tey saal bii saal bii yeneen i secret wala nit ñi. waaw xam nga yaa ngi naan tubaab yi naan. la solidarité africaine elle est légendaire je pense que Maroc aussi koo xam xam ni hospitalité ak solidarité seen mën-mën la def naa ni bi mbir mi amee ñëpp dañu nekk donc comme un seul jàppalante denrée yi collecté ko dëkk yëpp taxaw dëkk yëpp ñi ay tente ñi ay yére ñi indi lekk ñun ci suñu bopp au niveau de l' association on à la solidarité collecte ay doom dem ba ci montagne dem ba tali jeex dem ba piste jeex ñi ñu àndaloon sax doon wàccoo ci ci affaire yu demee mais ba ñu dem ba gis askan boobu seen tiitaange kontaan suñu gis ñu ko donc euh, résilience daal ñu koy tubaab bi di maanaam fagaru Maroc am na ko bu baax a baax Jamal Fana bii nag ñëw fi ba dem te gisuloo jigéenu jàmbaar yi nekk fii mënula nekk benn ci Fatou Yaya taalibe sëñ Fallou bi bokk ci ñi fi gën a yàgg lu ne ma nga ca nag macha di ràng wàcc bees yi di ravitailler ambulant yi di léet doon meeru mbootaay ci natt yi ba Sénégal sax ay nit dañuy bokk ci ay natti Jamal Fana yi boo dee wër jàmbaar ngay wër ay jigéen am jom. boo duggee jamono fanaan teg leen bët boo duggee 14h teg leen bët ni nekk ci digg naaj bi di liggéey man moom personnel jamal fanaan fii man damay gis sama bopp ci ku ñu wax ni yéen da ngeen di taxawaal wala yéen liggéey yóbbuwu leen foofu loolu dama gis jigéen ñoo xam ne ñu ngi ci digg marché bi di liggéey vingt heures sur 24 bu ngoonee lu leen seen borom wërsëgale ñu ñëw fii dañuy ñëw fii di fi def transfert wéef di yóbbante seen i famille ay dépasse di ay gàcce yu kenn du yëpp di bokk seeni natt un mois vingt jours ñun ñu teggi la cinq mille dirham bi dee deux cent dirham nga bokk nga am ñaata ngay am foofu sax cinq mille dirham ak cinq mille dirham day nekk dix mille dirham ça fait six cent mille 600000 mhm. nga am ko ci un mois 20 jours est-ce que boo nekkee Sénégal yow loolu di ko am. Mhm. te ñun dañuy liggéey ba ngoon jot xëpp ko ci natt dañ tëdd. te dañuy lekk dañuy naan dañuy tëdd ci kër bu baax képp kuy sénégalais nga nekk Marrakech 23h du la fekk sa biir yaa ngi koy liggéey ñun bu ñuy wàcc 2h 3h ndax boo di seet soo wàccee 2 heures du matin balaa nga yegg sa biir kër bay lekk bay tëdd presque 3 heures jot. ne man par exemple man balaa may pare dama yor jëkkër mais balaa ngay pare ba li ngay def nii 3 heures du matin jot te teewul di nga tëdd reposé wu bëgg xëyaat fajar ñëw taw bi si liggéey dañoo am jox dañu yeewu fajar bu ñu téye des fois client wóoruñ duñu lekk duñu naan. ba liggéey bi ñuy liggéey ba pare doog a lekk doog a naan doog a kaf doog ndax loolu moo ñu fi indi mm-hmm. waaye nag dafa métti ci sénégalais yi li ñuy teg ñu ngi nekk Maroc dafa métti na sëkk waaw ma koy may ñaan rek ñu dimbalee ñu loolu te yàlla rek tax ndax wax mais man wax ku wax Fatou Yaya wax ñi ci wàll ñëw fii ba dem te ziyaare woo seex yi erreur la ñoom moom seenub taarix rekk doy na jotaay ba tax ñu daagu

ñëwaat du ñëwaat. mais nooy bàyyee sa seex ginnaaw. mënu ma sa initiative naka la demee. fu ma nekk day nekk sama wér. moom fu ma nekk même fu may sëy sax day ñëw jege. ah déedéet déedéet. mi ngi nii. moo nekk Mbadou nekkoon topp bi. waaw moom sama xarit la. yàlla rek laa lay seede ñëpp ñu may seetaan nit am na lool. su fu ma mën a nekk ñu ngi mais naka nga jógee ba yaa ngi dem bitim réew ko quand même xam yaa ngi dem. rawante wuñu ñaar fukki fan ak juróom lañu rawante. bari na quand même bari na de. te gëleeru na def na lu ne. après nga ñëw. delluwaat Sénégal. doxal nga delluwaatal da nga ñëwoon xool si rek. dama doon def GIE. dem ci lépp fii laa seen nekkin fii nag c'est plus sérieusement évidemment ça nous a intéressé pour ñu waxtaan ak yéen. seen nekkin fii bi ngeen fi ñëwee ñaata at ci léegi. waaw ñaata temps trois ans. trois ans bëri ndax euh, nit dem na fenn def fa dix ans amul xëy na fu mu lal sax pour jaay fa yooyu ñu ngi fekk seen place mel na ni gis ngeen seen bopp ci seen nekkin fii ci Maroc. waaw liggéey moom bu ko yàlla barkelee day barkeel ci biir lañ toogal bi ànd na xale yi. Mm-hmm. yàlla moom waaw dëkk jàmbur laa ñëw mais maa ngi ciy dugg si 3 ans mais mosuma fi am benn problème. sénégalais nag léegi dañu daasante tuuti mënta ñàkk mais jàppal ma kenn loo xam ne sama xol lu ma naqare la ndax lu ma naqare ma koy wax ñu denc si ñu fi toogee neexul. waaw te kenn teguñu ko nag ñun ñoo ko teg suñu bopp. parce que da ngay gis koo xam ni xamante woo leen sax naan lépp Sénégal ngeen xamante soit seen yaay yi ñoo ne xamante woon daan ànd seen papa yi daan jëflante mais Maroc ak compter xaalis te hmm. loolu rafetlu ma ko ndax ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi alal bi soxla si rek lay fekk ñun ñoo ilif alal waaye alal dafa wëlbatiku li ñuy def li ngeen fi fekk mooy yi fi am te ci lañ dëkk te kilifa yi ñu ànd rek wax nañ ba dee lu ñu mën wax nañ te dëkk la bu ñu waroon na nag macha allah kenn ku ci nekk si sa bopp ndax dëkk wërsëg la macha allah. ndax kenn ku ci nekk boo yeewoo yàlla la suturaal loo tëddaale ak sa ba doo ko am kenn. Sénégal Maroc wala Maroc Sénégal lu yàgg la te di dëgg it ni marocain yi yaatoo fii ci ndakaaru ci rue Mohammed la sénégalais yi amee jàmm ci seen ruq fee ci Jamal Fana di penc ñu gën a ràññeeku ci Marrakech.